mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi euh, tey nag dañu am mbégte dalal professeur Fatou Sow saar socio-anthropologue nekk itam directrice euh, institut du genre et de la famille professeur Sarr ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci démb ak tey. maa ngi lay di fay di di di am mbégte aussi di ñëw ci seen rajo bi di nuyu waale seen directeur. Euh, donc euh, suñu auditeurs yëpp. Mhm. bi. Mhm. jërëjëf euh, at mu jot dañ daan jàkkaarloo waxtaan waaye tey contexte bi moo ni demee ñu def waxtaan wi ci kaay bi nga xam ni léegi itam yombal na lu bari alors tey dimanche juróom-ñaari fan weeru mars amoon na jamono atum dix huit cent vingt mu yema woon ak talaata mbir mu yéeme nag xewoon ci ndax jigéenu ndeer ya danoo taaloon seen bopp loola lañ jàpp ci histoire. Euh, xew-xew booba nag tey la ñu bëgg a waxtaanee tàqar ñi taxañ booba bu ko defee ñi nga xam ni euh, xëy na ñoo bokk ci génération tey gi sama classe gi gën cee mën a am lu leer yàlla def nag yow sa xel màcc lool ci wàllu taarix euh, mbir mu ni mel itam nga gëstu ci bind ci lu bari tey professeur fat Sow Sarr ñi fekkewul ndeer xamuñu ca lu bari loo leen di wax ci ci nettali waaw dama lay di wax ne lii amoon foofu 7 mars Euh, dafa du loo xam ne ñun ñëpp ko war a xam ndax suñu moomeel la bu ñuy wax ci tubaab naan c'est un patrimoine immatériel xam nga dootu looy di teg sa loxo nii. Mhm. waaye nettali ba dafa am solo. Euh, ndaxte ñun dañ xeet bu nekk da nga am da ngay am teslaay da ngay am foofu sukkandiku. Mhm. or euh, histoire Nder dafa important parce que dafay tax ñu delluwaat si li nga xam ne moo tax tey moo ñu moo doon suñu fondement li ñu mën a mooñaale parce que message yi dafa dafa bare bu ñuy expliquer lu ko lu indi woon ba pare nag ñu doog a wax ni ko lan lañ ci war a jàpp. Mm-hmm. Euh, pour pour xam na mu demee woon. Mm-hmm. waaye war si jàpp aussi pour ëllëg naka la ñuy bëggee Sénégal yi mel ko naka lañ bëgg suñu doom yi mel ko. li mm-hmm. indi woon yëf yooyu yëfu jom rek la yëfu jom la ak yëfu bëgg sa réew ndaxte euh, waalo dafa nekkoon ay réew seq ko muy Trarza Mauritanie muy Fouta. Euh, muy Kayoor yëpp dañ ko seqoon léegi mu taseeg tombeek colonisateurs yi jóge si jaayum jaam parce que dañ daan jaay esclavage euh, ñu mujj décidé ni ñoom léegi dañuy def euh, bàyyi nañ ba ay jaam parce que industrialisation baa ngi doon di di di commencé ay nit ñuy ñëw di leen liggéeyal hmm. waaye ñu bëgg jël ay suuf ci ay réew di fa bay pour di ko jëfandikoo li ñu loolu lañ tuddee colonisation agricole moom lañ def li ñu tudd ay domtom yi ay Guyane euh, ay yenn réew yu bari nga xam yi nekk ci île yi France moom leen ñoom loolu lañ fa doon def léegi ay Cayenne ay yooyu yëpp loolu lañ fa doon def léegi nag bi ñu ñëwee wër fii ci Afrique yëpp booru tund Afrique de bi ñu gis ni euh, waalo mooy suuf soosu ndaxte suuf si dafay jógee ci dex bi nga xam ne ma nga jógee ci Fuuta Jalon bu ko defee day indaale ay éléments yoo xam ne fu muy teere suuf soosu day doon suuf su neex suuf su neex a mbay. Hmm. ñu bëgg nag def benn traité ak euh, BRAC bi 1819 euh, lañ def traité boobu. Hmm. moom lañ wax le traité de Ndiaw li ñuy wax colonisation agricole pour hmm. Richard Toll boobu tey ñu fay jéem a xool naka lañ fay bay waaye pour ñoom tubaab yi suuf bi moom barak bee moom lépp xam nga ñoom dañuy dañu ñëw ak seen idée wu tubaab. buur baa moom lépp kenn moomu fa dara. te te su ko neex dogal demeewul noonu ah léegi bi ñu ko defee tamit mu bokk tamit ni ñi seqoon waalo bugguñu loolu muy muy muy fuuta ak bara ak trarza parce que pour ñoom ak même kayoor parce que bu fa bu waalo amee traité boobu ak euh, tubaab yi day am lu mu leen rawee ñoom ànduñu fi ah mais euh, euh, métis yi dëkkoon Ndar tamit kuñ ciy wax Pellegrin moo jiite mbir ma moom i tamit ànduñu ci loolu parce que ñoom tam jàppum jaay di jaay jaam moo leen doon moo leen eh, intéressé woon comme naar yi Pellegrin moomu nag moo dem seete ji Abar Fatim Borso barak bi ni ko da ngay wàññi parce que euh, waalo mi ngi woon beneen côté pex gi mi ngi woon si gànnaar mm-hmm. ko da ngay wàññi sa dispositif militaire boobu nga def di surveiller Trarza parce que comme ñun léegi ñoo la garantir am nañ traité te ñun dañu bëgg jàmm ci région bi yëpp mu nekk benn signe daal de bonne volonté kooku ni ko waaw donte kàddu bi vice barak bi yërëm bañ ni woon na ko kii wóoluwuma ko mu ne ko gouverneur Smart suma ko yónni ah rek ba dem def loolu pèlerin jàll si dem sa naare di leen dem leen ngeen attaqué leen parce que nekkuñu ko foofu mooy la bataille de càggar ñu jëkk xeex càggar gaañ barak bi ba damm tànkam ak ñu rey si ñu bari rek si armée bi ñu dem ndar di faju bi ñu demee ndar di faju ñoom ñu ñëwaat nag euh, euh, song ndeer ni góor ñi nekkuñu fa kon daa ñu jël capital bi am euh, Fatim Yamar Khouriaye bi nga xam ne moo doon lingeer bi Fatim Yamar Khouriaye moom moo organiser xeex bi. Mhm. daal di koy jiite ñu ñu déguisé wu kaalawu xeex ba dàq leen ñu dem mais bi ñu foqartee seen kaala ñu xam ne ñii ay jigéen lañu ñu dellu siwaat waat bi ñuy dellu siwaat yi fekk ñoom defaru nañu ko ñii seen puutar geex na. Mhm. ñu xam ne dañu nar a des officers bu dul loolu dañ leen di def prisonnier de guerre. mais bugguñu seen réew am woy mu ñaaw ëllëg. Mhm. looloo tax Fatou Ndiamar Khouriaye daal di décider ni nañ dee bi ñu nee nañ dee mu dugal ñëpp du ñëpp a dee mhm. ña mu war àndal nga xam ne ñoom kenn waru leen jàpp jaam ñoo dugg si biir néegu ñax boobu taal seen bopp mu jël nag ku ñuy wax si bëkk néegam bu ñuy wax euh, Barke Dia jox ko torche bi pour mu taal néeg kooku dafa taal dugg ak ñoom. Mhm. mais ci suñu gëstu munu ko woon munul woon defee neneen. Mhm. parce que ma ngay bañ woy wu ñaaw ëllëg. bu doon kenn ci deretam la joxoon mu taal ba pare mu daw taalul kon woy bu ñaaw la fi way ëllëg moo tax mu dajale leen tëj leen ci néeg jox ko bëkk néegam barka ja ni ko na leen taal. Mhm. kooku taal dugg ak ñoom ak bravoure aussi. Mhm. kon question d'honneur la woon. question d'honneur la woon parce que bu ñu la mosaan jàpp jaam comme ak guerre aujourd'hui dañ leen di violer dañ leen di def yëpp. gis nga te Fatim Yamar Khouraïa en réalité c' était une vice braque ndax Fatim Yamar moo teg dëkkëram ci ci nguur gi Amar Fatim Borso. Hmm. bi frère am euh, gaañoo euh, gaañul woon dafa xel bi dafa nax na naqadi woon 1795. Hmm. mu exilé ko à Dagana. yor nguur gi moo moo jigéenam teg reel la. d'accord donc ñoom ñoo yore woon nguur gi. a ah, bi bi seen bi ñu kooku ñu ñoom dem nañ sax ba jëli seen beneen cousin boo xam ni. Euh, ñoo bokk meen mais santul Mbodj muy bu Diop jëlee ko Kayor def ko barak mais xam nga bu ñu ko defee barak tam nit ñi duñ ko wóol. Mm-hmm. parce que il n'a pas la légitimité. dañ naan bokk ci. ñoom ñuy doxal kon ñoom depuis 1795 ku fa toogoon barak ñoo la fa teg tey bu ñu xoolee gëstu histoire ñoom ñëpp ñoo fara pend Adam Sall euh, xaruf bi daaru ñoom ñëpp ñoo leen fa teg Amar Fatim bii moom moo ko fi teg xam nga lu tax mu dem jëli ko. Mm. Amar Fatim joos la moom moom téejeeg la xam nga ñoom ñetti branche la ñu téejeeg loggar ak Jos. Mm-hmm. moom dafa dem jëli ji jëkkëram boobu ba pare fal ko ba mais alliance la doon wut bu ñu ñaar ñooñu lënkaloo ñu nee ñu ñu affaiblir leen. Mhm. kon c' était une femme politique il y a même des yoo xam ne. Mhm. ak le roi du Trarza moom moo ko signé en mhm. l' absence de du du BRAC. donc euh, ñooñu dañu tàmmoon xam nguur euh, mu ñu rey seen bopp nag pour man le sens de la patrie de l'honneur pour d' seen yaram. kenn du ko kenn du ko suuyee comme li ñuy wax. Euh, ñaareel ba ñu rey ko pour ñu rey seen bopp pour wayu ëllëg ëllëg sa wër kenn du wax waalo ñaaw na hmm. ñetteel ba muy une femme politique mu rawale ñaari doomam yi avant ñu def loolu njëmbat ak ndate ay xale lañ woon ay fukki at ak fukki ak ñaar boor yooyu daal lañu am hmm. mu rawale leen si seen benn bàjjen ñu daw parce que mu ngi doon xalaat jiwoom ëllëg te kon loolu mu def doomam yooyu ñoo mujj jiite waalo hmm. ñaari doomam yu jigéen yooyu kon xam nga kooku c'était une véritable femme politique kon li ñu jàngat si ci ci waalo boobu tamit moo di le pouvoir c'est pas des revendications c'est une conquête xam nga stratégie de conquête du pouvoir ak stratégie de revendication des droits du benn moo tax soo ñëwee ci 8 mars bi ni ñu topp rek di stratégie de revendication de droits mhm. boobu ba léegi na ngay stratégie de revendication des droits yóbbuwul fenn jigéen ñi mhm. faamu waalo yooyu dañu wane naka la ñuy dem ba yor nguur ba téye ko nekkuñu fi rek di wax góor ñi may leen ñu li defal leen ñu mais euh, ndeer tous ces messages bu ñu war jàngal jigéenu tey naka la ñuy def pour bokk dugal seen loxo ci ni ñuy yore réew. a ah. te bañ a xaar ku leen sedd. duñ kenn seddu leen ñoom dañu dem foqati nguur sax moo mënee wax lool mm. parce que stratégie lañ jox parce que euh, boo seetee archive IFAN wala nga dem archive nationale c'est que euh, l'histoire waal dafa yomb parce que lépp lañ bind. Mm. Euh, am na waalo barak bi amat Seye génn yarax mu moom tamit yàlla def ko may mu dem ba bi mu nekk ak Habib Thiam mu dem ba archive nationale France yi mën a fexe reproduire toutes les correspondances yi amoon mm-hmm. diggante barak yi ak euh, ak euh, colonisateur bi ñu gis ni à partir de 1846 bi nga xamee ni ndate yàlla yéeg na au pouvoir dañ daan bind barak rek bu jëkk ba mujj bi ndate ñëwe ñuy bind barak ak ndate ensuite ñuy bind ndate ak barak mujj gannaaw gi ndate kese la ñu bind. Hmm. pour te dire que jigéen ñooñu même dans la symbolique def nañ ko. Hmm. te boobu dafa taxaw ci gouverneur jëkkëram taxaw ma Mbodj Malick mi barak bi taxaw mënu ko waalo maa ko moom man dong maa ko moom yamal fa nga fa fa nga fa nga yem. parce que il ba lañ sëndoone ak looda googu lañ leen jëloon luyee lañ ko mu doon comptoir français hmm. la ko barak bi moo leen barak moo leen ko luyee woon. kon gis nga message yooyu fulla bi ak jom bi. ak ak liggéey bi mais en même temps. pour man euh, Nder c'est un message pour la classe politique aujourd'hui hmm. ndaxte dégg ngeen ba taay yi géwël way jaala waalu fay na Nder hmm. xam nga euh, ba Nder tàkkee gannaaw barak la woon waaw xam nga ñoom ba ñu demee fayu hmm. euh, Mbañ bi mu ñëwee pour jël sa revanche dafa xeex xeex ak naari gañe leen pour te dire li ñu daan def violence yaayu euh, roi émir du Trarza ba dafa dagg noppi parce que c'était très violent les guerres. Mm-hmm. mu ensuite mu wëlbatiku xeex ak almaami du Fuuta. ñuy xeexe foofu tey ñuy wax centrale solaire de Bokhol boo génnee Dagana tuuti rek attaque gauche. Mm-hmm. foofu moo doon plaine bi nga xam ne garab gi nga xam ne fekk na histoire ba ma nga fa. moom mu xeex moom gañe ko mais bi ko gañee au mu rey ko reyu ko. Mm. dafa jël mantoom solal ko ko jox ko fasam pour rawale ko mu rëcc. Mm. kooku tamit bi mu demee yónnee ko ay teraanga yu tolloog jëf jëf mm-hmm. ba am si sax ay jabar ay jigéen mm-hmm. ba mbokkoo deret jaxasoo sa lañu ñu xeexatuñu sax d'ailleurs mm-hmm. dégg gisutuma ko ci histoire bi mais li ma retenir foofu moo di moom xam na ni kii nawleem la ndax buur la comme moom da ko jekku rek moo tax mi buur la comme moom mu organiser ko loolu liñ ciy jàngal surtout dans le contexte bi ñu nekk tey moo di man mos naa ci bind benn article ni leen je voudrais que les hommes politiques bi ma adressé hommes politiques yi ni leen soyez tous des Yérim Mbagnick Mbodj hmm. ngeen xam ne adversaire politique nawle la su ku nekk jàppee woon sa adversaire politique comme nawle kon yu bëri je trouve que tey Sénégal daañ ko romb hmm. kon ñun dañu am histoire boo xam dafa riche bo mu ëpp suñ si sukkandikoo di ko xool ak di ko jàngat ni wuma ñu jëfe ko nañ ko doon defee au dix-septième mm. dix-huitième ak dix-neuvième siècle wala depuis le treizième siècle bi waan waalo existé mais ñu koy xool tey ni comme référence comme référence nag lan lañ si mën jàngat pour mm. jëfandikoo ko tey loolu mooy mën tax ñu ñëpp ñu mën a ñu mën a dund parce que boo xoolee institution du waalo yi dama ne leen waalo mm. fa la royaume wolof jàngi jàngi politique parce que Njaajaan Njaay moo jëkk nekk buuru waalo institution yooyu ay sëb ak bawar yooyu yëpp institution démocratique yooyu ñu teg nga xam ni ñëpp amoon ñëpp amoon cër ci la ñuy wax assemblée nationale ba. Hmm. même ñi ñuy wax jaam lañ sax dañu amoon représentant au niveau de l' assemblée kon xam nga ni démocratie weesuwul loolu. Hmm. léegi euh, mais al kii hmm, al euh, kiiw kii bi Ndiadia Ndiaye bi rakk ji ñëwee Mbark mboo fa la Mbow jën jóge moom dafa dem toxu dem Jolof nekk buur ba Jolof. gis nga ba tey boo seetee ni ñuy introniser le Bourba Jolof mhm. dafa reprendre ni ñu doon introniser le le roi du parce que day day dañuy dañuy simuler dugg ci dex gi génn jën mhm. loolu fàttaliku njaaja njaay la mu nuuree woon ci biir dex bi mhm. ba pare teg ko ci jal bi wutal ko benn jal buñ koy teg génn nuur jox ko mais bu ñuy def bu ñuy def euh, jolof tamit noonu la ñuy fale seen buur parce que njaajaan njaay moo jóge woon wolof moo jóge woon waalo te te jolof boobu tamit moo meññ kayoor ak bawal mm-hmm. kon mani ni la waalo c'est là-bas où njaajaan njaay a appris fa la jànge naka la ñu yore politique mun ko jël yóbbu ko jolof jolof lawtal ko ci yeneen kon walo dafa am histoire boo xam ni c'est extrêmement important mm-hmm. pour ñu ñuy xool ëllëg fi ñu jëm mm-hmm. mais bu ma dellu rek si jigéen ñi jigéen ñi du rek ndeer de. gis hmm. nga lu jiitu ndeer jigéen ñi def na lu raw lool. ah am nañ lingeer boo xam dafa dugg ci néeg bu amoon puutaru jëkkëram parce que jëkk parce que dañ ay mbokk rek ñoo doon sëyante. Hmm. jëkkëram war xeex ak frère mais boobu mais meen dafa fort. Hmm. mu xam ne kii tey sox yi mu ne tey sox yi duñ ko du nangu mukk di ko fekke ñu koy jëmale ci càmmiñam bakkanam di ci rot moom moo dugg foofu taal ka bu taal dafa taal ànd ak moom tàkk dee. waaw xam nga ñoom euh, euh, dee xam nga honneur moo ëppoon fuuf bakkan. bakkan waaw buñ naan la bésu dund du bésu dee dafa mel ne daf may fàttali rek japonais yi ak le harakiri le sens de l'honneur hmm. xam nga boo demee ba yow gàcce àddina dee moo la gën nga fekki ko. dee wuute ko la ñuy wax. dee wuute ko moo gën. Hmm. xam nga tey moo tax tey bu ñu xoolee tey si suñu xale yi ñu war yar ëllëg. Hmm. boo bëggee wax gis nga jom du rek wax nii si làmmiñ. da nga ciy nit ki. nampatal ko si ba pare won ko ñooñu naka lañ defoon parce que toog na nit ki danga war am jom. Mhm. foog nga foog nga fësal ko ñi am. te boo demee xamul sax luy jom. waaw nga wan leen loolu mooy jom loolu moo tax ñun ñuy bind ay bande dessinée. Mhm. di ko di ko di ko di ko séddale. 7 euh, mars bi façon nañ yéene def benn bande dessinée def nañ ko pare sax am nañ mhm. mille bande dessinée yu ñu war di subee Sénégalais yi naroon ñëw yi naroon suivre sur 2S. mais daf di bësu dund di bësu dee. dafa am loo chose des yoo xam ne c'est beaucoup plus important pour l'histoire mm-hmm. tey réew mi dafa jànkonteeg loo xam ni loolu moo sut di wax ay waxu jigéen mm-hmm. donc c'est le destin du Sénégal qui est en train de se jouer aujourd'hui mm-hmm. loolu moo tax ñun ñu ni euh, dañuy teg célébration commémoration parce que man du ma ko tuddee célébration commémoration laa koy parce que ndeer du feet pour man ndeer c'est tragique donc bu ñu ñëw du feet toog toog gëstuwaat la. Mhm. pour xóotal xat xalaat yi pour jéem a seet yan yoon. Mhm. lañu ñu war am ëllëg fan la Sénégal euh, war a war a jaar. Mhm. pour suñu doomi tey. ñu garder suñu honneur mais surtout pour man sur l'histoire international tey ñu ngi ñëw bu ñu génn dañuy féete le 8 mars. 8 mars ay jigéen la woon yu demoon New York di doon liggéey ci textile bi saa à ci usines yi ñaw. ñuy xeex seen àq ak yelleef pour am meilleure condition de travail parce que dafa metti woon ñu boom leen ñu jël ko loolu yëpp c'est très bien moom moo fondé la revendication des droits des femmes mm mais ma ne ñun am nañ histoire bu gën a bu sut loolu mm-hmm. parce que c'est important de revendiquer ses droits mais xeex pour sa patrie mm-hmm. moo gën a fort loolu yëpp say àq ak parce que waaw àq ak yelleef c'est important mais bala ngay am àq nga am réew bu ko bu la permettre nga def ko xam nga loolu moo dikkaat tey bu ñu fa bu ñu fi toogee ne dañuy ay damay def ay manifestation pour talaatay nder te tey destin wu Sénégal mooy nekk di joué wu. Mhm. donc il va falloir ñu del si loolu parce que je me dis que ñoom Fatou Ndiamar Khouriaye. Mhm. dañu joxe seen bakkan ndax seen réew. ci seen réew juste mon professeur yaa ngi évoqué mm. contexte bi ñu nekk boobu moomu ne may ñu ubbi ci ab parenthèse tey. bu mm-hmm. bu ñu ko yóbboo ci démb jigéenu Sénégal yi tey lan war a doon seen taxawaay ci fi réew mi toll ak euh, jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel fan yëpp. xam nga jigéenu Sénégal ak bu démb doo leen mënuñu leen tëkkale. dëgg la xam nga dañu dañu sonal jigéen ñi. Mm-hmm. su góor yi defee seen tuuxa doone ba toog. ñu ne jigéen ñi jóg leen tax jigéen ñi jóguñu gis nga waa Casamance yi ñuy wax. waaw dama rafetlu bi ma gisee seen marche boobu. Mhm. ñu jël drapeau national. lamboo ko symbole. Mhm. bi man dama xool la sa gannaaw marche ba. Mhm. moo tax Casamance bi daan toog di xëccun dafay moom boppam. ñoom taxaw ba ñoom ñu taxaw indi indi indi lu drapeau vert jaune rouge. pour man symbole ba dafa dafa dafa dafa rëy. mais jigéen ñooñu ça fait quarante ans ñu xeex pour jàmm. jàmm foofu est-ce que jàmm ji tax na jàmm ji ñëw. parce que góor ñoom ñoo yore. di def seen tooki doona suñ Sénégal bëggee ñu yor si jàmm nañ jël jigéen ñi teg leen ci réew mi mm. mais bu ñu jël goo ñi teg leen ñuy def seen njaaxum ba pare ñu ne waaw jigéen ñi war nañ jóg wax buñ mm. dañu war lakk daay day fekk nga jox leen cër parce que waalo c'était un système mm. binaire waaw jigéen ñi dañ fa amoon place barak dafay am bu ñu falee barak dañuy far lingeer gis nga bu ñu falee laamaan dafay am jongama kumba boy kon toujours y avait le pendant féminin di pouvoir daalo waalo man jàngat boobu laa si am moo tax ma ni man dañu war dépasser ay waxu parité wax léegi binôme. Hmm. bu ñu amee président bu góor def vice présidente. bu jigéen. Hmm. voilà bu ñu wala bu ñu defee président bu jigéen def vice président bu góor. Hmm. donc poste yëpp dañ ko war a def post double. ek nga xam ne genn wàll gi jigéen la genn wàll ko góor la. donc yaa am na jàngat yu bari yoo xam ne man bu ñu ma waxee man leen man. lii may wax waa taxu pour man sama civilisation moo gën téeméer yoon civilisation France parce que France moo ñu gañe de dëkk la. Mhm. ndaxte daf ñu daf ñu ni mu gañee euh, ndate noonu la gañee Afrique de l'Ouest yëpp jële naa sax Sénégal. Mhm. ñëpp a gañe parce que moo ñu ñoo ñu ëppoon jumtukaay. Mhm. dañu amoon ay kano te ñun amuñu woon lu dul ay poudre. donc ñoom dañu gagné parce que armement la ñu ëppale. Hmm, mais bu dee civilisation ñun ñoo leen raw parce que ñun dañu amoon jigéen joo xam ne moo daan jiite ki ñu jëkk jàmmaarloon en Afrique de. Hmm. mooy ndate yàlla moo tax man leen ndate c' est l' héroïne au dessous de tous les héros mais comme góor ñi ñoom ñooy bin histoire ñoom ñooy wax góor ñi ñoo nekk au pouvoir góor ñi ñooy diriger ñoom duñ ko jël teg ko comme une héroïne. ni leen arrangé rek la ñuy indi. xam nga tey ñu ngi wax affaire Ndar place Faidherbe. Hmm. man depuis 2003. lañ def benn séminaire Novotel ma ni Omar Sarr meeru Dagana il faut ñu jël Ndata Yalla teg ko Dagana il faut ñu jël Ndata Yalla teg ko place Faidherbe pour que elle prenne sa revanche sur Faidherbe c'est-à-dire même Ndar mhm. du ñu wax le sens de l'histoire mhm. parce que ñi war a jiite réew dañu war a am xam-xam am histoire mhm. waruñu ko teg rek ci ay bëgg-bëgg kii laa def kii moo fi war a nekk lale mais Waalo c'était la façade atlantique du royaume Saint-Louis et la façade atlantique du royaume du Euh, donc barak moo jëloon luwee leen ko foofu mooy sundoone ak loodo moo tax ndate da doon continuer da jël impo sort ak ba gànjool sax bu ko defee tubaab yi bind ni ndaxte dafay piller mais ñoom bu ñuy jël seen impôt ñoom bu ñuy piller ñu ne loolu impôt la mais bu reen bi di jël impo ñu ne ko da ngay piller ba tey boo duggee si archive yi yooyu lañ fay bind moo tax histoire dañ ko war a déconstruire pour xool ñooñu naka lañ doon dundee mais ndaxte dafa amoon ful la joo xam ne dafay taxaw ni ko lii du fi am d'ailleurs sax kenn dootu fi jaar di la yóbbul di traversé dex gi. Mhm. bi mu ne bi mu leen defee loolu nag ñu xam ne tey parce que xam nga boo demee Saint-Louis il bëgg bu léegi pont Faidherbe bu moo fa nekk bu fa mhm. pont amul woon bu bu la gaal yi jàllewul doo dund doo loolu moo tax mu song ko. Mhm. mais ëpp ko ay doole ci ci ay kano moo tax mu mu gañe ko. ndaxte ñu ngi ko suul dagana dañ ko mar c'est-à-dire buñ leen di suul ñoom duñ leen di suul leen tëral dañ leen di taxawal. on les enterre xam nga moo tax ces histoires sont extrêmement riches pour ñu xool ci même la symbolique lan la doon tey. Mhm. kon ñu baree ngi fiy jóg tey naan ñun ñooy talaatay ndeer ñun ñooy jóg ndeer c'est-à-dire lu jóg nag ñu boole ci talaatay ndeer. Mhm. mais lenn dong la jom la. Mhm. valeurs de la patrie. du du xeex bu nekk rek mooy xeexu ndeer. ndeer ñu xool sensu xeex boobu lan la woon. mooy xeex pour pour sa réew moo tax daaw. bi ñu ko bi ñu préparé suñu lépp bëgg def le bicentenaire parce que daaw moo doon les deux cent ans. deux cent ans effectivement. Mhm. far yàlla indi fi mbas bi. Mhm. bi ma Mamadou Ibra Kane laajee ni ma waaw ma ne ko bu doon ñoom date yàlla lii la ñuy def. Mhm. bu doon pas date yàlla Fatim Yamar Khouriaye. parce que ñoom ba ñuy rey seen bopp. c'était pour sauver leur patrie. or ñun bu ñu bàyyee célébration bi pour sauver ay bakkanu sénégalais. dañ koy def yéen a ngi ci yoon wi ba tey. c'est message moom la la ñuy dox moo tax itam tey itam bi Sénégal nekkee si jafe-jafe bii mu nekk tey c'est la la nation est au-dessous de tout. Mm-hmm. ay célébration journée de la femme pour man c'est secondaire aujourd'hui par rapport ak li li parce que c'est une révolution e est en train mm-hmm. qu'on s'en sorte dignement et que Sénégal gën a jëm kanam. Mm-hmm. ñu tabax fi loo xam ne buñ ci ñëpp sukkandikoo ñu delluwaat ci la nga xam ne mooy cosaan mooy valeur euh, le sens du partage le sens yooyu yëpp loolu moo taxoon. Euh, euh, ñuy tabax réew miñ fii fii tabax bu parce que dañu waroo ak suñu ay valeur yu dëkk loolu moo indi li fi am tey hmm. donc c'est ça les questions c'est pas ça l'objet de notre euh, analyse mais mais dafa am lu ñu waroo par hmm. rapport ak li nga xam ni loolu moo taxoon ñu teg le fondamental de du, Sénégal mm. donc affaire yu jigéen tey Euh, c'est bien bu ñu dellu suwaatee ci ci euh, euh, bisum ndeer bi. Hmm. pour wax message yi ñu ciy def c'est aussi pas simplement ndeer mais ñun dañuy xool euh, euh, askan boo gis fii Sénégal rek jigéen liggéey na fa lu rëy loo xam ni war na war nañ ko buñ ko fësalee nit ñi sukkandiku si dana mën tax ñu mën a avancer gis nga tey ñu ngi wax toujours Aline Sitoé Diatta aussi. Mm-hmm. parce que dama ni la résistance nationale à la colonisation jigéen ñi ñoo ko yore d'un bout à l'autre au Sénégal. Mm-hmm. du point de vue spatial et du point de vue temporel. parce que si nit ndaxte yàlla la tubaab bi commencé song Sénégal mais si Aline Sitoé Diatta jotee la mujj song Sénégal hmm. kon ñooñ ñaar ñëpp jigéen lañu parce que ki ñu mujj déporté jigéen la mooy Aline Sitoé Diatta hmm. et c'est la Casamance la dernier coin saa à dire Sénégal ngi commencé waalo au nord hmm. terminé Casamance au sud donc voilà au sud donc symbolique bi jigéen am y compris dans la construction du Sénégal nit ñi indi wuñ ko kon buñ ko indi woon daañ leen gën a jox gëdd ak place bi ñu am mais ñëw nañu tubaab bi naxal suñu xel. Mm. indil ñu fi ay texte indil ñu fi ay loi yoo xam dafa delloo gannaaw jigéen parce que ñoom seen gannaaw seen jigéen teguñu leen woon sax nit comme bàyyi ma leen ñu woon. 1944 dong lañ leen doog commencé may leen droit de vote. Mm. alors que waalo ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu jël. Euh, gagné ko parce que dañ ko ëppoon arme. Mm-hmm. jigéen a ko jiite woon parce que ki njëkk jàmmaarloor fii Sénégal si xeex jigéen la woon. Mm-hmm. chef d'état bi njëkk daa jàmmaarloor mooy mooy Ndate Yàlla. Mm-hmm. or donc yu mel noonu la ñu war a jël delloosi ko pour wax leen ni bu ñuy wax place jigéen ci réew mi. Mhm. ñun jéggaaniwuñ ko dañu gëm ni sax ñun suñoo gënle tubaab yi. Mhm. ba loolu moo tax ñun bu ñuy dem ci symposium yi par exemple le march mars ma dinaa def ak vidéo conférence ak le de Paris bu Hidalgo. Mhm. mais si histoire Nder la ñuy dellu si pour wan leen leen ñun li ñu amoon moo gën téeméeri yoon ñoom li ñu am. fii kon léegi li Senghor doon wax la rendez-vous est de donner et kay dañu war a xeex ba tey la calendrier international. Mhm. ñu boole ci ndeer parce que mhm. ban par exemple ci li ma mën ak li sama xam-xam ak capacité yam. Mhm. comme damay liggéey ak université Séville en Espagne à Séville y a programme ndeer ndegam espagnol yi ñoo mën dem ba créer ay programme der ñu mbasi mm. Sénégal yi justement fa laa oh. jëm si Sénégal li nga fi wax yëpp nii euh, njariñ moo ci feeñ ndax xëy na bu ñu euh, demee demba dana am lu ñu fa jëlee loo xam ni danañu jariñ demba tax ñu naan tey euh, mais ñàkk jox fulla xew-xewu ndeer boobu walla ñàkk kaa daal yittewoo ba ndaw ñi tey mën cee jëlee dara loola yow noo ko jàngatee xam nga kii dafa lu lu metti la mais du ñu désespéré xam nga 2008 laa fi commencé def célébration officielle yi Sorano di ko def tous les deux ans def ko kii université Cheikh Anta Diop ak UCAD e def ko Quai d'Orsay fale à Saint-Louis jox école primaire yëpp mais def nañ mémorandum yónnee ko président de la république jour boobu juróomi ministre ñoo ñu fekk Sorano. Hmm. mu doon Adja Awa Ndiaye la Adja Awa Ndiaye la woon Omar Sarr Ousmane Euh, ministre de la culture ki bu sant Birame biram Birame Diouf. Mm-hmm. y avait un cinquième. ñoom ñoo ñëw fekk suñu foofu ñu jël mémorandum dugal ko jox ko Awa Ndiaye ni ko na ko jox Ablaye Wade mais Ablaye Wade mm, waalo waalo la. Mm-hmm. même bu dee fekk bokk na feneen. Mm-hmm. parce que euh, Mbañ Wade day maamam. bon mais euh, pourtant foofu oma Sarr nga fa woon euh, Aïda Mbodj nga fa woon euh, ay waalo waalo ñu ngi woon ci gouvernement Ablaye Wade mais on a pas encore on n'a pas réussi à faire de à marquer Nder ah man bind naa benn lettre ouverte à l'actuel président de la République Macky Sall mi ngi mi ngi nekk ci journal quotidien mi ngi ci internet ku ko xool gis ko. Mm-hmm. pour wax que expliquer lii ma lay expliquer lu tax ñu war dugal Nder ci calendrier républicain bi. Mm-hmm. bi ma gisee jéego yooyu yëpp nag defuñu ko. man it ma téye sama loxo Sénégal mënatuñoo mu ak waane ba ñuy feete fenn 8 mars man sama tànk di dëgg wala sama kàddu di ko jëpp. Mm. tànk dama koy def ak yeneen réew yi comme wax naa la dama koy def ak Paris euh, kii bi. ak ñoom mais pour si biir Sénégal dama xamul lu tax ñun suñu histoire duñ ko jël. man leen nañ jël sax 7 mars bi mu doon jour réflexion parce que ndeer du du du fête. Mm-hmm. ndeer commémoration la dafa waroon foofu moo waroon toog jour boobu ñu jël ko mu jour gëstu gëstu xool fu ñu jëm fu ñu teg suñu tànk bu wiite bu la wiitee bu ñu bëggee mbumbaay ñu mbumbaay mais ñàkkul la weesu yow nga am sa patrimoine am sa histoire bàyyi rek ay ñu jógee fale di la ëcc ëccee naa la defal fii awal fale ngay dem di la joxoñ fooy dem sa yoon te yow nga waroon fexe ba ñooñu ni ñu ni ñu fexe ba seen patrimoine àddina yëpp di ko di ko def yow nga fexe ba yow itam sa patrimoine nga leen man it am na lu ma am di xeex ba tax sax Nations Unies reconnaître ko hmm. xëy na li ñuy def ndaw na mais ñun xeebuñu ko parce que au fur et à mesure fi ñu yàlla di yóbbu yëpp ña ngay demee en tout cas man kontaan naa tey espagnol jël ndeer boole ko ci li ñuy def mm-hmm. ay organisation yu nekk foofu jël ko boole ko ci li ñuy def bu ko keneen defee keneen defee keneen def ko bu yàggee dena law mm-hmm. kon man damay woo femme sénégalaise yëpp mais nañ dem mooyu wóot mars ba fexe ba 7 mars bi ñu dugal ko néew ma pour ñu bàyyi 8 mars de. Mm-hmm. mais fexe ba bu ñu feete 8 mars ñu feete 7 mars. képp koo xam ne patriote nga tey ci dëkk bi war nga accepter ni lii may wax dëgg la defuma ko pour man mais dama gëm ni ni ñu ni ñu ëllëg par exemple ñu ngi def beneen bande si Fanta Canal de Balde mhm. moom mooy cousinu Alpha Moussa Molo dans le Fuladu waa Kédougou ci euh, Kolda yu bari xamuñu ko mhm. pourtant kooku gouverne na une province du Fuladu jusqu'en mille neuf cent cinq moom lañ daan waxal ndattale tam la ko tubaab yi waxal naan dafa doon piyee moom moo yàqal ci càmm tuuti benn dëgg dafa ñame woon ñafe ak ak bañ kon jigéen ñooñu ñëpp nga xam ne ay bañkat lañu dañ leen war a génne parce que jarala leen doon xeex jarala seen bakkan mm. dañ leen war a génne bu ko defee ñu ni ñun Sénégal lii am nañ ko lii def nañ ko dëkk la waa lan lan moo tax nga yaakaar ne ñooñu daal yëkkatiwuñ leen génnee leen ba nit ñi xam leen ak euh, seen histoire ni mu riche ak li mu mën a jariñ génération wu tey yi waaw man dama ne mooy ñàkk vision ak mm. ñàkk gis-gis parce que gis nga nag réew dañuy wax xam-xam moo koy yore expertise moo koy yore parce que tubaab yi ngay gis ñoom fexe nañu ba seen culture parce que booy doo noot nit da nga da nga koy noot ci culture am d' hmm. gis nga actes yu ndaw yi yëpp ñuy def xam nga am na temps fi doon wax fëgg jaay xëy na yomb na de. Hmm. mais fëgg jaay c' est aussi une culture xam nga ñun anthropologue yi dañ naan lépp culture même même kudd gii ngay indi culture li ngay utiliser culture la. Hmm. kudd li ngay wax kudd culture la. waaw technologie de la culture la technique n' est pas neutre. même la science n' est pas même ci elle est objective kon yow la seule façon bi nga mun a am pour génn ci tey hmm. mooy nga delloo si waat yow buñ la xasee ba tàggale la ak sa culture rek foofu lañ lay moome fëgg jaay boobu loo ci jàngat xam nga fëgg jaay à un moment donné ak pauvreté bi ajustement structurel nit ñi amatuñu lu ñu yëre ñu solal seen njaboot yi hmm. ñu dem jënde ji ko ci fëgg jaay mais boo jëndee sa fëgg jaay comme li may wax jumbax aawati fu mu génne hmm. donc ñoom noonu ñooñu di solo noonu ngay solo. waaw parce que solo boobu dafa am lu mu tekki. Hmm. ak lu mu ak lu mu wund parce que message la. Hmm. parce que nit ki yaa la yow jàng yow communicateur nga le contenu hmm. et parce que boo taxawee sa jëmm rek message la. waaw donc yow bu fekkee ne tey abdiqué nga. ni yaa ngay jël culture jàmbur te a culture boobu ngay jël sax yow xamuloo ko. waaw parce que nit ñi dañuy wax dañu toppandoo tubaab bi mais toppandoo wuñ leen xamuñu leen. lañ leen wan rek la sa apparent lañ xam. finalement da ngay ñàkk sa bos te du tax tax nga am bële. doo xam bos bos kooku. Mm-hmm. kon ñun li ñu war mooy dellu si waat wax dellu si waat si par exemple euh, ay travaux yi fi Cheikh Amadou Kane def sur l'aventure ambiguë la grande royale Fouta la fa ndaw soosu liggéey gis nga am na yu bare gis nga même Koli Tengelaa yaayam. lu mm-hmm. euh, lu mu lu mu bambi lan la liggéey ñu bare xamuñu ko fii donc jigéen ñi dañ doon xeex pour seen askan dañ doon xeex pour pour seen xeet. dañ doon xeex pour seen pour seen meen nga dugg siin foofu foofu dugg tey je crois que sénégalais yëpp war nañ ku nekk zone ba nga nekk nga génne nga nga xam ne lañ fa liggéey ak lañ fo def tey ñi ngi war di wax ay ay yaasin boobu tu am na yu bare tey bon euh, lale si mbiru ceddo gi la mais boo ñëwee si mbiru diine bi tamit da nga fa gis ñoo xam ne par exemple man bi ma découvrir maam asowaalu ba tey c'est c'est ordinaire pour man mm. bi nga xam ne boroom këram nelaw na mu yore daara ja toujours dama koy wax ndeysaan may ku ma waxee ne damay gërëm xaadim si la mhm. parce que avec lui moom ma aidé ma am xam si yu bare parce que ma mhm. ci bindoon article nga xam ni kooku la mu na jàngal la góor ñooñu mu jàngal ñooñu la ñu jàngal ba ñu nekk fii tey mhm. kon am na lu mu bay waaram ci biir diine ji mais duñ ko tudd bu ñu tudd jigéen ñi dëgg la jigéen ñi dañu doon jaamu seen borom kër loolu dafa bokk tamit ci li leen seen diine wax ay borom xam-xam woon mais duñu fësal ba boor booru xam-xam waaw dañuy wàcc jigéen ñi amuñu xam-xam mhm. du ñu mun jëm fenn parce que xam moo yore askan moo yore réew te jigéen mooy yar aussi non non seulement jigéen mooy yar ma dama mhm. naan par exemple école toujours dama daan wax ne case des tout petits yi mhm. suñu fexe woon bala may àgg si case des petits dama ne groupement promotion féminine yi man su ma ci amoon dogal ñoom ñëpp dama leen di jàngal alxuraan parce que jigéen bu nekk war nga mën jàngal sa doom alxuraan mu nga war nga ko mën dalal baax mooy école bu njëkk ci doom mooy fu mu nekk parce que bu bu mu nekkee tout tànk ba ba muy xaw dëgër di am juróom-ñaari at soo ko mën génn dem peut-être dem sa daara ja mhm. sa biir kër ga war nga mën def loolu ci moom bu ko mhm. defoon du ñu gis ay xal yi am ñetti at di taxawaalu ci mhm. ci mbedd bi Sénégal parce que sëriñ su mag fii ñu xam yëpp tey ñoom ñëpp ñi si seen borom seen yaay seen way juru ñoo leen jàngal ñoo leen jàngal ñoo leen njëkk dalal dalal alxuraan noonu donc léegi moo tax ma ne loolu mën na nekk kenn waxu leen buñ leen jàngal mën na am du ñu wàcc alxuraan bi waaye mën nañ jàngal ba ci ijji suufi war nañ koo mën mhm. kon buñ ko defee loolu dafay régler waale moo tax toujours bu may travailler sur la famille depuis deux mille dix neuf ma naan quel président pour la famille sénégalaise ba bind ko ci parce que dama ne leen famille fi xale bi nekk ci mbedd bi di génne fi la mhm. délinquant bi di génne fi la kii sàcc di génne fi la kii yàq di génne mhm. te bis bu ñu toogee bi benn famille mënatul yor ay ñoñam benn président du mën diriger Sénégal te mel ne moom mooy lu fi nekk parce que xale yu tuuti yi génn tey ay xale yu ndaw gis nga leen ñu ñu bokk ci xeex bi. waaw di piller di yóbbu si kër yi. loolu war nañ ko war nañ ko seet jàngataat aussi mm. sur délinquance bi am ci famille bi famille bi moo nërmeelu. Mm. évidemment c' est les politiques publiques qui sont responsables lu tax famille bi nërmeelu. Mm. ñun li ñu mën mooy gëstu suñu gëstee bënd ko génn ko parce que gëstu moo lay permettre nga gis luy ñëw. Mm-hmm. te ak seegul. Mm-hmm. donc wax nañ leen ko fii 2019 ko jox leen ko ñoom ñëpp candidat à la présidentielle ñi leen ngir yàlla bu ngeen taxawee tegal leen politique de la famille moo gën politique de la femme parce que ci biir famille la femme génne mhm. si la enfant génn si la handicapé génne si la malade mental génne ñiy wër ci te bu famille bu nekk mën a yor say ñooñ rek mhm. loolu di nga ko mën a régler évidemment mhm. porte d'entrée ba jigéen la mais approche boobu c'est très différent nga fii politique femme fii politique ak du loolu ñun dañu gëm. kon yooyu fii dafa tasaaroo te waroon a booloo. mais cest à comme ñun suñu métier aussi dafa tasaaroo depuis 1960 ba tey ñu ko fiy def jëru gisuñu ci mm. kon da war a taxaw nga seetlu nga jéem xool naka ngay soppee kon léegi yooyu yëpp moo tënkoo ci la ci loolu te loolu xam nga kii kay def mooy mooy yaay mooy mm. jigéen bi. Mm-hmm. or jigéen boobu ñu dellu si waat toujours ci valeur yi. pour que nga mun am mu mun a yor famille bi yëpp yor bi nga xam ne moo ngeen bëgg il faut nga jël si jigéen bi dugal ci loolu ci moom pas ñun noot leen comme ni ñuy def. Mm-hmm. parce que tamit ñun loolu d' accord ñu ci. parce que jigéen man comme li ma lay wax. Mm-hmm. Euh, droit de la femme man tubaab jàngalu ma ko. Mm-hmm. parce que man ndaxte yàlla mooy sama référence. kon ki dem ba mën jiite réew kenn du fa topp di ko wax affaire droit de la femme droit waaw. waaw voilà donc dañu war a gëm ne jigéen ñi dañu am seen àq ak yelleef. ku nekk lay sa lay sa cër askan ba ñu jox la ko ne naa la waalo le pouvoir était binaire. Mm. Brak dafa am ñu fal Linguère. laamaan bi am ñu fal jongama ku ma koy donc du kenn rek mooy jël di dogal di def lu ko neex. mais est que tam jigéenu démb yi niñ gëmee woon seen bopp gëm ne ñoom elles sont jigéenu tay yi mel na noona waaw mais parce que dañ leen a fexal parce que colonisation bi moo fi ñëw génne leen toog leen mm, teg leen ci ginnaaw. jël ni góor école yi ñu góor ñi ñooy jàng école. Mm. jigéen ñi dañuy jàng tuuti rek. waaw tout récemment ngi tolloon ci xeexu njàngum jigéen. waa lu ñu mën a yore kër yi mm. ñu mën a yore kër yi gis nga bu ma la xoolee nee naa la école normale William Ponty rawee na ñaar fukki at ak juróom-ñeent presque fanweeri at école normale des jeunes filles de Rufisque mm. parce que école yooyu ñoo doon formé ñi nga xam ne ñooy nekk ci administration bi mm-hmm. moo tax ba tey administration sénégalaise à peu près vingt quatre pour cent de jigéen ñoo fa nekk mm-hmm. parce que modèle modèle bi tubaab bi indi jigéen dafa war del des gannaaw loolu mooy problème bi fi am mooy mm-hmm. loolu jotewul dara ak suñu aada jotewul dara ak suñu culture suñu culture yooyu ku nekk da nga amoon sa cër ku nekk respecté fi nga war a respecté dëkk seeku ñun dañoo réer. Hmm. dañu dem ba mujj jëli ay yeneen aada te bokk moon ñun nag suñu liggéey comme anthropologue mooy dem jëli ji dans le passé quelle la culture du passé fexe ka ba delloosi ko tassaare ko ak nit ñi ñu ak historiens yi. Hmm. ñu génn ko wax ko mën a ñëw euh, euh, euh, tabaxaat loo xam ne démb dootul dellu si c'est pas la peine aussi de rêver. Hmm. mais ëllëg bi ñu war a jëm. si si lan lañ koy sukkandiku. Mhm. parce que boo gisee réew yu mel ne ay Japon réew asiatique yi. Mhm. mais ñoom dañu garder seen aada ak seen tradition ñoom du ñu tubaab ku leen xool xam ne niroowuñu dara ak tubaab. Mhm. moonte tey ñoo nekk à la pointe de la technologie. ñoo nekk à la pointe du développement ba tubaab yi sax fa la ñuy dem di jënd ci ñoom ñoom ñooy Chine mooy usine du monde. du monde ku takk montre japonais yi la. tey ku fi defar ordinateur chinois yi la. pourtant ñoom ñoo nekk à la pointe de la technologie de l'invention de l'innovation mais ñun tamit war nañ mun def loolu loolu moo tax euh, euh, parce que réew tamit ñëpp koy tabax wala euh, xaw ma tubay ñaari ñaari loxo koy takk waaw voilà donc donc mooy kiw Penda mhm. donc ñu koy ñu aussi de notre notre notre ñu daal di ko mhm. aussi yal na ko yàlla teel ekkati parce que parce que moom tamit elle fait partie des gens yoo xam ne dans son domaine mm-hmm. muy liggéey bokk important na pour la transformation des confiances effectivement parce que man damay wax ne ëllëg bu ñu waree soppi Sénégal mm-hmm. artistes man si ñoom laa ko gën a yaakaare mm-hmm. parce que mouvement social féminin bi dafa nërmeelu donc artistes c'est les levains des futures révolutions pour ce pays en tout cas sur la question des questions wu jigéen ñi euh, jàngat boobu mooy li ci ëpp solo pour pour man. Mm-hmm. Euh, ñu war a gëm ni war nañ ci war nañ ci am nañ daal patrimoine boo xam ne c'est c'est important. Mm-hmm. c'est extrêmement riche. Mm-hmm. bu bu ku nekk indee sa wàll. pas dans logique logique compétition amu fi parce que ñëpp njaboot gi moo tax ak ëllëg xam nga ñoom yaam yaa Fatima Abdoul Khouraï nekkuñu woon di compétition. bi ñu waree bay seen waare dañ ko war def. bi leen seen wareef jotee rek dañ ko def. Mhm. parce que ñoom ñoo doon fal baraki te suñu leen falee takkal leen jabar yóbbu leen fenn euh, euh, ñu xumma teg leen foofu ñoom continuer nekk ndeer di doxal li ñuy doxal fexe ba tubaab ba reconnaître nit ki finalement de fait moom mooy moo mooy buur bi ken falu ko buur ñoom ñoo fal seen bopp buur. Mhm. moo tax man la jàngatu Talaatay Nder ak jàngatu histoire du Waalo c'est la différence entre la stratégie de revendication des droits. et la stratégie de conquête de pouvoir. Or, les 8 mars, stratégie de revendication de droit donc la ñuy jàngal. Or, bon, je pense que stratégie de conquête de pouvoir si loolu la jigéen ñi war jublu tey. alors malheureusement euh, sànq euh, wax nañ que euh, ñi ngi toll ba tey ci xeexum droit droit yi nag ci jigéen ñi bokkoon na ci Sénégal xëy na am wàllu parité nga xam ni fi ñuy falee bu ñu demee bu ñu tegee góor teg jigéen yooyu la droit tey boo doon def taxaw seetlu gi fan lañ ci toll. bon bu ñu ko seetee par rapport ak li ñu fi amoon 1960. parce que ñun ay indicateurs la ñu liggéeyee et avancé yi bari na trop bu ñu waxante dëgg. parce que 1972 Senghor moom kenn laaju ko kenn forcé wu ko moo taxaw indi fi code de la famille bi lan la taxaw muy ko. Hmm. parce que dañ daan xëy rek rëpp di jigéen da ngay sëy jigéen ba mu neex la nga xëy suba naka dàqat aja fase naa la génnal kër gi. mu xam nga loolu léegi jóge na fi. Hmm. da dem ñu at ji leen. jigéen ba année quatre vingt yi jigéen ñi amuñu woon droit génn dem defi ji commerce dem def fenn tant amuñu autorisation seen jëkkër. Mm-hmm. Euh, parce que loolu yëpp ñu ngi ko jëlee ci tubaab bi parce que tubaab bi jigéen amul woon sax droit am compte bancaire moo tax ñu naan la madame ak mademoiselle. Mm-hmm. c'est-à-dire yu amoo sa ak wu bopp. dañ la moom rek. loolu moo tekki madame tel ak yooyu. Mm-hmm. bon loolu lañ comprendre ñun ba léegi. ah euh, ñuy avancer xeex euh, xeex yi di am ba ñu mujj am kii ba ñu mujj am. lutte contre les violences may siy fàttaliku Binta Sarr yan na ko yàlla yërëm te nekk Kaolack mais avant loolu 1945 mais tubaab bi dañu waxoon ne jigéen ñi duñu voté ñu ñuul parce que xam nga dañu dañu teg def ni ñun ay lañu. Mm-hmm. mooy que ñoom 44 dong lañ doog a am droit de vote. Mm-hmm. ñu ñëw nag di voté local yi en 1945 ñu ne benn jigéen bu ñuul du ci bokk jigéen yu xonq yi rek ñoo ci bokk tubaab <laughs> mais ku ñuy wax Ndata Yàlla Faal ak Sukayna Konaare Ndata Yàlla Faal cousine Ngalandou Diouf la Sokeyna Konaté cousinu Lamine Gueye la. Hmm. ñoom ñoo jóg ne tey Touba bu fi génn ñu jël sa bakkan. Hmm? France dellu gannaaw waaw waaw. France daal di dellu gannaaw dafaat beneen arrêté daal di mois daal di léegi jigéen ñi war nañ mën voté kon ñoom di droit de vote boobu sax jigéen ñi doon ci xeexal seen bopp. léegi nag après indépendance bi jigéen ñi dañu xeexoon loolu ànd ak si ak ak waa mouvement teyaay yi ñoom Aram Cumbe Samb ñoom Ndeye Sarr dañoo bari xeex oustaz ñoom aw awa gay ngi fii di doon saan je pense à elle ñu porteur de pancarte ñoom ñëpp dañoo xeex ba ne sipp ba ñu mën a amal suñu indépendance waaye ba ñu amee indépendance rek ñu jóg ni ku jàngul rek doo am yenn poste yi. sa hmm. la ñu génne sa la ñu dàq jigéen ñi. par dañ leen dàq baratuñ ci baratuñ ci baratuñ ci place donc mais depuis loolu nag comme je te dis ñu ñëw ci avancé am na ba ci parité bi ak yooyu. avancé hmm. am na ci ay droits parce que système international tam mooy pousse réew yi. Mm-hmm. ni leen ñi dañuy am seen ak ah, par exemple ay congé maternité yu normal. Mm-hmm. Euh, par exemple ak ak ngay fay ay allocation mm-hmm. euh, familiale ñu koy jox jigéen yaay yi. y a des choses qui se sont euh, mm, ah, mais am na yu des par exemple le droit à la pension boobu moom dana neex góor ñu torop. parce que jigéen dafa cotiser comme góor. bu nekkee fonctionnaire. di cotiser état bi di ko dugal ci ay keesam. bu ko yàlla génnee àddina ñu bañ ñi duñ ko jox ñi nga xam ne ñoonu la fi bàyyi. loolu c'est pas juste. bu fi wa bàyyi borom kër boo xam loo xam jotul gannaaw bu fi bàyyi ay njabootam. Mm-hmm. dañ ko war jox reverser la pension. yooyu mooy nga xam ne jigéen ñi pour pour te dire que combat wu jigéen. Mm-hmm. du rek pour intérêt jigéen. Mm-hmm. ñun niñ ko gisee c'est pour askan bi yëpp. parce que intérêt njaboot gi surtout. pour gi la parce que pension boobu ñu reversé ko seen njaboot dafa di lu jaadu. parce que bu dul loolu c'est l'État vole les parce que femmes yi dañuy cotiser comme góor ñi ak yëpp. te bu jigéen ñu ñu bu njëkk ba léegi nañ ko ñu ñu ñu dindal leen impôt ni leen ay benn charge. Mm-hmm. alors que jigéen jigéen moo ëpp charge sax bu ci biir njabootam. Mm-hmm. Mm-hmm. donc yu mel noonu mi ngi fiy des maintenant bi ñu ñëwee ci parité bi mooy ñu toog rek fa ñëpp di toogee di noccee di nocci loolu ñun dañ ciy ñun ñun ñoo koy théoriser d'une certaine manière. en utilisant la théorie de l'équivalence fonctionnelle. dañu wax ne bu fekkee jigéen ñi dañu yem à la base war nañ yem au sommet mais bu dee loolu amul waruñu fa nekk. parce que euh, parce que parité du rek ni ñu dañ def fu góor toog rek jigéen toog fu du loolu. Mm-hmm. dañ ne bu dee da ngeen ñëw ci bërëb nga am fukki góor am fukki jigéen boo cay tànn kuy jiite fu góor nga mën a jiite jigéen war na fu mën jiite. Mm-hmm. wala booy tànn ñaar wala ñu jiite mais war nga tànn benn góor ak jigéen loolu moo am ci parti politique li fa nekk si jigéen moo fa nekk ci góor. Mm-hmm. kon lu tax poste yëpp góor ñi di ko yelloon loolu moo indi ñun poste électif et semi électif. loo xam ne ci moo tax foofu la yem loi bi concerné wul loolu damay fàttali toujours ñun ñoo doon wax Ablaye Wade ni ko Air Sénégal amoo fa pilote bu jigéen kon boo fa bëggee def parité nooy def parce que mm. parité ñun tamit bu ñuy def ci xam la ñuy teg di ñuy wax te ñu rek di wax da ngay dañuy parité pour parité dafa am yoon maintenant nag mouvement def dañu teg ni wéy dañu war nekk fii dañu war nekk fale loolu moo tax ñun bi ñu toogee ñu def évaluation bi ñu gis ne jigéen ñi ba tey nekkuñu dugg nañu am nañ accès ñu ngi ci assemblée bi ñu ngi ci euh, biir conseil collectivité locale yi mais par exemple boo gisee femme maire téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari maire yi am Sénégal fukk ak ñeenti jigéen dong ñoo ci am je crois que am na benn bu ci yokk par parce que maire ba dafa des. Mm-hmm. muy deux virgule cinq pour cent xam nga loolu dafa dafa dafa jaaduwul. Mm-hmm. Ah, mais loolu tamit da ngay xalaat lu tax amul. Mm. li tax amul bi ñu demee seeti président de la république parce que ni ñu ko seeti la ñu nar seeti ji yeneen ñëpp. Mm-hmm. pour ñaax leen ni leen chiffre boobu nañ koy yokk. pour prochaine élection yi parce que ci biir parti ngay aw pour nekk lool. parce que euh, bi ñu leen waxee ñu ne ñu ñoom dëgg la mais bu fekkee bu ñuy tabb tamit politique c'est du réalisme. doo mm-hmm. tabb jigéen rek pour tabb ko. il faut mu indil la ay nit. waaw loolu tamit. mu kon ñu wàcc sur le terrain politique. waaw no du question loolu. il faut que mm. femme ba am leadership. ba communauté bi reconnaître ko. Mm-hmm. loolu moo tax ñun programme bi bees bi ñu tëgg ñu tuddee ko WPPP mu nu wëbal political participation. Mm. ñu am coopération suédoise di ko gérer ñu bokk ci consortium boo xam ne juróom-ñetti réew ci nekk. Mm-hmm. ñun ñuy gérer Sénégal Côte d'Ivoire ak euh, RDC. ñun si leadership la ñuy liggéey cest à dañu fekk femme politique yi nekk ci biir parti ñun ñoom lañ bëgg dooleel. Mm-hmm. pour ñoom ñu mën a am. ba ñu ràññeeku biir parti ba ràññee fa ba tax ñu leen teg li ñu leen parce que mm-hmm. tamit. ñëw ni rek nañ teg jigéen pour teg jigéen. waaw dem jëli kenn ca ca ginnaaw ñëw teg ci kanam. aussi wax la. Mhm. donc donc tam dafa am réa donc loolu moo tax ñun ñu choisir jël benn investissement bi ñu def ci trois années yëpp si ñoom lañ koy def. Mhm. pour fexe ba am ay leader am ci. mën aussi seet ay leader dans les localités bu élection yu jotee leader femme yu am leadership te nekkuñu si benn parti. Mhm. ñu xool naka lañ mën négocier ak benn parti. pour mu surtout que léegi sax ubbi nañ élection yi ñëpp mën nañ cee bokk. non problème bi du loolu mën nañ ci bokk mais dama la. soo nekkul dans un parti politique. waaw tu ne peux pas sortir sortir. Mm, am léegi nga am ñu la boot léegi ñun dañuy xool fekkee ni mën nañu am comme pas élection yi en ay alliance la rek. Mm-hmm. bu ñuy xoolee ñun espace bi ñuy créer. Mm-hmm. dañuy def cartographie femme leader yi nekk Sénégal yëpp yëpp gox bu ne. ñu xool ñi nga xam ni am nañ capacité te mën nañ dem. Mm-hmm. mais peut-être bëgguñu woon bokk bëgguñu bokk benn parti politique. mais ñu am espace de négociation d'alliance. avec parti yoo xam ni ñoom tam mu doon seen njëriñ ko nekk gis sa intérêt. Mhm. pour au ñu arriver à dix pour cent de femmes maires parce que parce que quand même deux virgule cinq dafa ruslu. Mhm. mais booy analyser comme chercheur aussi doo dem rek ak sa bëgg-bëgg. Mhm. da ngay xool aussi fi ngay teg ndax lu mën a nekk la ak lu mënul nekk. ça ne sert à rien d' avoir des slogans di dem ak dënn. da ngay dem aussi ak intelligence. dara newu fi. te fekk dara nekku fi donc ça jigéen ñi war nañ investir ñoom. ba renforcer seen leadership loolu hmm. moo tax en tout cas ñun programme bi ñu jël surtout programme PAP bi caucus bi doon def parce que caucus moo koy gérer hmm, actuellement caucus des femmes leaders waaw liñ liñ fi defoon ci parité bi def hmm. toute la tournée au l'ensemble du pays euh, ba def mobilisation boobu euh, def des activités avec les femmes parlementaires formation bi def avec les femmes au niveau des locales ak yooyu yëpp lënkaloo ko woon ak rajo communautaire yi donc on a des programmes programmes yi nar def bi ñuy def léegi te def ak coopération suédoise loolu moo ko tax a jóg li ci am intéressant moo di avec coopération suédoise du ñoom ñoo lay wax defal lii hmm. ñoom dañ lay wax rek balaa euh, cadre bi ñu bëgg def yow yaay seet li leen neex nga def parce que ñun ñun pays yooyu yëpp ku nekk bokkul ak sa morom looy def hmm. man dama dama a évaluer limitu programme parité bi amoon Sénégal hmm. ma ma ma ci loolu nag pour jëm seet naka lañuy ñuy mën def ba gën a mën a euh, avancer moo tax cette fois yi jëmale wuñ ko si ñëpp ñun parti politique rek lañ jël. Mhm. nit dañu war renforcer seen leadership waxtaan aussi ak góor ñi. Mhm. parce que programme bi jëmmu rek si jigée ñi. Mhm. dafa jëm aussi si góor ñi dafa jëm aussi si média bi. ak ak ak bi pour que femmes yi ñu gën am visibilité. mais loolu yëpp tamit par exemple dañuy am partenariat ak ay médias yoo xam ne femmes yi daañu jaar ci programme politique yi. daañu jaar ci journaux yi euh, daañu jaar ci ay émissions yi. pour que nit ñi gën leen xam par exemple daañu dem jël femmes maires yëpp daañu dem def reportage. si ñoom lan lañu liggéey ci seen biir bu ko defee teg ko à la télévision. Hmm. def ci débat pour que sénégalais xam ne jigéen ñi. parce que dafa ci am dafa ci am benn femme bu nekk meeru Jafat. Hmm. Euh, Astou Ndiaye benn benn kii élimaanu dëkk boobu moo ni ma. Euh, fekk daf ñu seen bi ñu demee seet ji président mu gis ni xam naa xale boobu pour ma yow xale boobu daal jàpp leen ci lu ngeen mën. Mm-hmm. parce que liggéey bi muy abattre fii yax wax ma la xale bay liggéey yëpp. Mm-hmm. xam nga loolu ça fait une fierté. Mm-hmm. nga xam ne et les jeunes et les femmes ngay def liggéey bu rafet. donc ñun dañu bëgg femmes mères yooyu yëpp ku nekk la nga def sa liggéey ñu jël la teg la Sénégalais yëpp gis ko bu ko defee Sénégalais yi gën mën wóolu femme jigéen ñi nga xam ne ñii bu ñu leen tegee mère. effectivement daañu fa def liggéey bu mucc ayib. parce que bëgguñu aussi rek ni dañuy teg jigéen pour teg jigéen. donc ñun on se bat aussi pour ñi nga xam ne ñoo am expertise parce que réew. expertise moo koy tabax. Mhm. xam-xam moo koy tabax bu rek farandoo. Mhm. parce que farandoo mooy indi erreur yu bari. waaw jël nit teg rek parce que daf ma topp. parce que daf ma faral mhm. bu mu yóbbu la si jëyee xam ne doo doo ci si génn ci guuta boo xam doo ci mën a génn. or bu fekkee lépp dañ ko teg si yoon. teg ko ci expertise. bu ko defee jigéen ñi xamul ñu jox leen moyen. ñu jàng ba mën ba xam bu ko defee ñu fu ñu taalale seen loxo. comme li lay wax Euh, xaleel bu loxoom setee mu mën bokk ak mag. Mhm. ah bu sa loxo setee en tout cas boo amee expertise bi nga mun taxaw. ci wetu góor ñi bu ko defee ñeneen ñi jàppale la nag. Mhm. parce que il faut ñu jàppale leen parce que góor ñi tamit dañu am ak saay saay saay bu wax ñu si dara. ku jóg ñu ñu teg tànk ca kaw nga wàcce. ñoom daal leen utiliser jigéen ñi leen di génnal. di leen mm. mhm. ñoom ñu yekkal leen. tegee leen ne parce que ñun dañu ne jigéen ñi. il faut ñu génn ci loolu elles ne doivent plus être là à se pour mm. des parce que leadership bi ñu am wane ko ba di xeexal ay góor di leen teg place. Mm. mais ñoom nañ ko xeexal seen bopp. Mm-hmm. léegi nag mais pour qu'on y arrive il faut que ñu créer aussi la construire la solidarité entre les femmes. surtout bu benn jigéen jugee ñëpp jàppale ko. ñu jàppale ko mhm. am na solo alors ponk bu mujj bi mooy euh, itam autonomisation des femmes. Mhm. Euh, te mu ren bi daanaka ci 8 mars bi foofu la tënko tey jigéen ñi euh, bu metti metti amee daanaka ñum ñoo koy njëkk a yëg ndax wax nga ko sànq femme bi c'est un ensemble mais jigéen bi mooy porte d'entrée bi daanaka mooy socle bi tey jigéenu Sénégal ci li nga ci xam seen wàllu moom seen bopp ci wàllu koom-koom fu mu toll. xam nga ñun ay gëstukat lañu. Hmm. Euh, système des Nations Unies bi aussi ñu dañ koy réinterroger parce que thème yi je te dis que tous les trois ans ñu changé thème ñu ñëwaat ci benn thème moo tax euh, réew mooy war a génne thème boppam. topp ko ba si mm-hmm. jobaxtal la bu jeexee mu dem jëli si beneen. bañ rek lu ñu lay nga ñoom bu ñu indee ren yow pendant ce temps ci topp di ngër ngëri bu déwénee ñu indi leneen ñu fàtte bu tey ñu def la excision ba léegi autonomisation ba léegi mm-hmm. droit ce sont les mêmes di daw ak di ñëw. Euh, la dañu nekk ci réew yoo xam dafa am ndóol te seen jigéen ñi ñoo gën a sonn ci ndóol bi mm-hmm. mais en même temps le projet international foog aussi ñu interroge ko mm-hmm. loolu ñun yàgg nañ koy wax projet bi moo di ñu ngi tëj usines ni góor ñi amatuñu liggéey mm-hmm. donc il faut ñu renforcer jigéen ñi économiquement bu ko defee ñoom ñu def ñu yore kër yi mm-hmm. pendant que jigéen ñi góor ñi parce que góor ñi liggéeyuñu donc ça c'est aussi des problématiques yoo xam ni il faudra qu'on réfléchisse sur ça euh, acte bu ñu posé rek c'est pas un acte neutre à la fois lu pertinent la il faut que jigéen ñu jàppale leen ñoo gën a sonn. Mhm. mais en même temps man dama daan wax bu parce que xam nga lii yàgg na de. Mhm. tangu tangu ba euh, ministère de la femme bi Aminata Mbengue nekkee ministre de la femme xam nga mhm. ñu ngi doon def euh, kii amoon na lu ñu daan def benn genre banque de banque de xaw ma lan de céréales. jigéen ñi lañ daan wax yéen bu bu bu ngeen bayee bu ñu paree ngeen indi teg seen céréale bu ko defee bu noor bu jotee. ñu euh, ngeen ñu ñëw di leen ko jaayaat njëgu yomb. xam nga bu boobaa góor ñi lu ñuy def dañuy corrosé seen loxo parce que xam nañu jigéen ba mën na dem te banque céréale ba dana dana dana lijjanti ba ñu defalee jigéen ba banque céréale lu tere ñu ko borom kër ga tamit banque céréale mm. nga xam ne bu bu bu waree jël joxe dépense jotee moom tam mu am fu mu jëlee dimbale njabootam mm-hmm. donc je me dis que il faut qu'on regarde aussi le projet international mm-hmm. de fan de de par rapport aux pays du tiers monde mm-hmm. donc usines yi dafay dafay il faut ou ñu leen di fay salaire yu gën a gën ndaw parce que nit ñi léegi ay ouvrier agricole la doon. Mhm. dañuy ñëw jël suñu tool yi nekk ay ouvrier agricole ñu lay fay ay mille cinq cent et cetera loolu ñu am mënul mhm. boobaa foog ñu renforcer autonomie économique autonomisation économique des mhm. pour que femmes yi fu góor ke mënulul dara moom mu yor jigéen mu moo tax femmes Sénégal yi dee nañu. parce que dañuy wax kër yi femmes sénégalais yi su bare ñoo yor kër yi. parce que pas parce que góor ñi dañu ne sax parce que boo xëyee amoo liggéey. wala ñu tëj sa wala ñu dàq la mais qu'est-ce que tu vas faire jigéen bi moom nu toog te du xool njabootam du ñu lekk mhm. elle sera obligée mu dem débrouiller ñëw indi ko mhm. donc autonomisation des femmes c'est bien mais il faut une analyse critique si projet wu système des Nations Unies bi mhm. lan la ko jël ak lan la ko tëgg parce que tout ça aussi c'est de c'est des xëy na euh, mënuma développer de manière très très pointue analyse boobu mais dañ ko war a bàyyi xel moo tax li may jël pour man dernier kii bi moo di wax ci xalaat bi moo di ñun ñoo war xool fan ban problème mu lañ am su suñu jigéen ñi fii ah. ñun suñu saafara bopp génn ko topp ko di ko di ko liggéey di ko liggéeyante ba mu féete boor mm-hmm. ñu jóg a dem jëli ji beneen mm. mais bu fekkee at bu nekk rek ñu ñëw ñu ne bii mooy thème mm-hmm. ñu topp si di ngër ngër ngër ngër boo ëllëgee ñu changé te boobu la temps yow nga àggale ko sax ñu dem indee ci beneen te xëy na méngoowul sax ak say jafe-jafe donc nga mëngu accès ak accès ba ñoom ñoom daañu fexe ba nga sa bopp sax. Mm. mais xëy na loolu du sa problème. principal du sa priorité du sa priorité du sa farata. Mm-hmm. du sa du sa farata xëy na lenn mooy sa farata parce que mm. dofuñu aussi. Mm-hmm. li ñu lay wax di nga am loo ci mën def di nga am loo ci mën a wax. Mm-hmm. mais loolu yëpp mooy suñu manque de maîtrise de notre destin. parce que il faut ñu fexe ba ñun ci suñu bopp Afrique dafa war moom boppam. dañu parce que ñu moom suñu bopp nag ñun ñoo ko war a ñoo war a tabax vision fan lañ bëgg jëm. Mm-hmm. te vision xam nga li ma lay wax. Mm-hmm. ñoom dañ fi nekkoon indi ñu programme d'ajustement structurel. Mm-hmm. ay trois ans cinq ans doo ci mën tabax dara. léegi comprendre nañ ko moo tax léegi sax yóbbu nañu ay vingt ans vingt cinq ans. mais c'est sur le long terme ñun tamit dañu war suñu programme jigéen ñi c'est sur le long terme. ñu xam ni fii par exemple dañu wax ni dans vingt cinq ans ñun dañu war travailler par génération. tey xale yi nar màgg temps sàngam kon lan lañ bëgg ñu mel. suñ ko xamee ñu wax ni voilà kon nii lañu leen. bëgg tàmbali cee liggéey. bëgg nañu ay présidente dans dans waaw. sëriñ si sax dañuy wax ni. Mhm. doom bi nga bëgg tabax ëllëg sax da nga koy defar. balaa nga koy waaj da day wala nga tànnal ko bàyyi fa ngay commencé. loolu mooy anticipation loolu mooy construction d'un projet. pour mhm, le futur mhm. kon ñun waruñu dellu si wax ban futur lañ bëgg pour le Sénégal bu boobaa la ñu bën xam ban tibu sénégalais lañ bëgg tibu sénégalais boobu fan lañ koy defaree ci ban fami bu boobaa famille boobu naka lañ war mu mel mm. léegi nag famille boobu tey jii lañ koy tabax tey ji lañ koy jàppale tey jii lañ koy dimbali moo tax ma ni il faut qu'on ait une politique de la famille mm-hmm. loolu bon loolu tamit ça xaw ma ñaata at maa ngi wër di ci wax mm-hmm. li tax ma koy wax mooy lan toujours ci gëstu lañ ko teg dañ mm-hmm. bi ñu toogee ba gis téeméeri Sénégal xaleel yooyu gis Sénégal ñeent fukk ak ñaare yeewoonu seen penk ñooy waajur ñun yàgg nañ ko wax de mm. moo tax xale yi nga gis tey ñu génn tamit ci mbedd bi ba déborder nit ñi dépassé leen ñan fa yan xaleel lañu ak fan lañ nekk donc munoo bàyyi xale yi ñuy dëkk ci mbedd bi. Mm-hmm. ay xale yi ñuy ñuy taxawaal di lu ñu lekk ak lu ñu naan ak yooyu yëpp nga xëy suba euh, bu ko defee Sénégal moom ñëppay ñëw xamuñu fu ñu jógee. Mm-hmm. ñu jóge bitim réew ñu jóge feneen suba suñu xëyee ñu ngi ci tali bi mais lan lan lañ fay def. Mm-hmm. parce que kër moo war yor nit. kër mooy place sutura. dañu wax fexe ba famille bu nekk am moyen wu jàppale ay ñoñam. dimbale ay ñoñam. ñu dund ñu dund ci biir sutura. mais boo xawee sutura famille bi. borom kër ga mënatul yor njabootam ndey ja mënatul leen yor ñoom mu toog sa dama di waan ak ay ak ay ay ay doomam yooyu yëpp mooy li nga xam ne tey euh, crise bi ñuy traversé buñ ci jógee dañu war taxaw xool ak sérénité. Mhm. naka la ñuy tabaxee naka tabaxee Sénégal ëllëg. Mhm. parce que jot na. Mhm. ba yenn yi nga xam ne ñu jaar jaar yenn jaar jaar yi mu mën am utilité. parce que une crise peut toujours être positive. effectivement pour toujours aboutir sur un résultat mhm. de transformation positive parce que li ñuy wax il n'y a pas d'échec il y a que des leçons apprises effectivement problème bi mooy ban jàngat nga ci dem mhm. pour aller de pour aller de l'avant ngir ngir ngir jëm kanam loolu moo tax ma ma la doon wax ni la euh, c'est bien que ñu def euh, débat bi mhm. mais tey problème mu jigéen pour man c'est secondaire par rapport à ce que la nation est en train de traverser parce que jigéen ñi d'abord ci nation bi lañ bokk ba pare. dëgg la bu ñu réglé fu nation bi jëm après mun nañu wax waxu jigéen ci jigéen ñi jërëjëf euh, professeur Fatou Sow Sarr waxtaan wi am na solo macha allah ñu lay gërëm bu baax a baax nag ci disponibilité bi euh, fàttali ni yow socio anthropologue nga yaa jiite itam institut du genre et de la famille euh, ñu doon waxtaanee jigéenu ndeer ñi waaye itam defab taxaw seetlu ak xayma ci àq ak yelleefu jigéen ñi waaye itam ci moom seen bopp gi ñuy woote ci wàllu koom mu di autonomisation économique de la femme ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci Demb ak Tay. jërëjëf merci beaucoup. merci ñu lay beneen yoon incha allah ci ci yeneen jotaay nekkoon seen émission démb ak tay ñu gërëm leen bu baax ci ànd bi dellu di sargal jigéen ñëpp di leen uh, dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi fegoo ak Diawo jàlloo ci jàppandal gi ñu yendoog jàmm